Euh, yéen mbër yi ñu ci bari dañ leen di bàkkee ni euh, dafa am ñu ngeen di déglu ñu bari parce que boo xoolee làmb actuellement fi mu toll yéen mbër yi parce que mbër yi rek loolu ci mbër yi ngay ko nga koy dégg mbër ki démb dégg nañ fi problème boo xamante ne mu ngi jóge ci guy gi ak Balla Gaye te li ko waral mooy ay si ay nit yoo xamante ne dañuy ñëw ci guy gi wax dem ci Balla Gaye wax yéen mbër yi dem ngeen ba mujj gi ku ci nekk day ñëw ci ñii wax ci ñii wax ci fee boo indi ñàkk a déggoo yi en tant que mbër yi nga xamante ni yéen ay du ngeen ay adversaire làmb moo leen boole mais yéen ñëpp ku ci nekk day demalante di ñëwalante loolu boo ko gisee ban gis-gis nga ci ak ba xam yaa ngi waajal sa bis yow waaw dinaa la tontu mais man bugguma wax ci détail man duma wax bëgguma wax ci détail mais mais détail la pour man mais bëgguma wax ci détail mais dinaa la tontu euh, gis nga nit suuf bu sudantee dañ koo jal tey jii xëy na làmb la ñuy wax mais li ngay wax nii c'est le Sénégal en général Sénégalais yi ñu bëri ñu bëri ñu bëri noonu la ñuy doxalee muy politique bi muy musique bi showbiz bi muy làmb muy feneen ak feneen maanaam nit ñi ñoo bëgg di commentaire lu ñu fekkewul benn ñaar ñu ci bëri dañuy bëgg di yóbbu ay wax diviser pour mieux régner ñun dund nañ ci lu bëree bëri bari mais man bëgguma dund ci détail encore une fois nit daal lim lay jàppee wala mu bàyyee la ko yow yaa koy won loolu laa gëm. tey jii bu nit ñëwee ne ma jiili nee nangam damay xool jiili lan la dund ak man xëy na nag seytaane waxul dëgg ma yàq na xel mais diw nee na diw nee na tax nga mere nit ah xëy na loolu tamit nekk ak sa kii waaye loolu pour man defoo la nañu yemale rek bañ a jàppee nit ki jikkoom parce que nit ki boo bëggee seen ànd woy da koy jàppee sa bopp man gars yi loolu laa leen wax chaque jour. bu leen ma jàppee man ni ma mel jàppee leen man ni ngeen mel man dinaa leen jéem a jàppee ni ma mel man parce que tey jii mbub moo nattu jotu la waroo ko solo sa nawle am na loo xamante ni bu ñu la ko waxee ci nit wax dëgg yàlla te moom lu mel noonu wala bi nga ànd moom gisoo mu lu mel noonu ah da ngay ko rek loolu yaakaar ci mu ak beneen actualité boo xam ne mu ngi xew ci contrat boo bu boole ñaari mbër ñuy dem ba ci waxante loo xamante ni bu ëllëgee ku ci nekk mën naa bàyyi làmb di gis sa moroom di sëgg est que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel en tant que mbër ah ñu naan ñu ngi góorgóorlu ba duñ wax lu ñaaw ndax dañuy góor góor yàlla nag moo fi ne te làmmiñ ni ñuy wax naan Matar Seck Mboro moo ne nit bu waxee ba def accident xaw ma làmmiñ bi defee accident jëmm jaay suux moo tax yooyu dafa jar a sóoraale wax nag yombul ñu lay taalal micro ngay wax moom wax dëgg yàlla yàlla rek moo la mën a dimbali ba doo wax erreur te Sénégal dañoo bëgg dagg ay wax yu sew di moo wax nangam partage ko surtout réseaux sociaux yi xew léegi xam nga ñi ñu bëgg bës jaral na lu nekk moo tax il faut ñun ñii di wax tam ñuy sóoraal li ñuy wax donte nag wax yombul waaw yàlla rek moo fi ne yàlla nañu yàlla suturaal rek waaw. Ah. non ana ana Pape avance bi daa mel ni dugg na wala. Pape Thialis non gisaguma ko nag. xam naa mi ngi ci yoon bi. kon Garga ba léegi laaloo avance. non non non laaloo avance. Moussa Thiès mu ngi lay nuyu. maa ngi koy fay. Garga bi ci ngénte Basirou Kabe am na luñ wax mais. <laughs> Saalum. Garga Mbossé Garga Mbossé ah daaw. <laughs>